Eh, Barça ci yàlla Barça ay waay Barça waay xalam demoon na bay neex gum nga dog ci yéen pourtant nag yéen woon ci yoonu gagné match bu correct xaar seen retour xool nu ngeen koy gérer mais Inoki Martinez yow lala dal aw salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen ab ak seen sant Ligue des champions huitième de finale match aller doxoon diggante Barça ak kookay di Napoli foofee ci stade Maradona mais nag Barça vous avez bien débuté votre match. ñu dem ba benn moment gën dagaan mel ni ko màndi ci biir terrain bi moom it mais Lewandowski bii bi mu dugal non mais Angleterre bi croisé bal bi oh là là quel but vraiment la jamono ji mu ngi yeewuwaat di teguwaat ci temps bi le problème de Barça vraiment doo xam nag défense bi la c'est doo xam nu mu demee noonu kooku di Martinez indi ko yow yow yow yow Osimhen dalaa laal ba ngay xalangu di bëri ba rey sa bopp noonu. ah action boobu mënoon nga tu tu pouvais faire tu tu pouvais mieux faire quand même Inoki Martinez mais teewul gars yi Napoli moom it vraiment ils ont bien joué tey seen dëkk ils ont tout donné kooku di Anguissa vraiment il était présent ci milieu terrain bi mu ngi noonu Gundogan nag ci début match bi il était présent mais ñu dem ba benn moment il faisait beaucoup de pertes de balles. dëgg tamit ci duel yi présent woon na et tout mu doon euh, match boo xam ne kan ràññee nañ ci Cancelo aussi de même que Lewandowski ak Lamine Yamal mais en mois donné dañoo dem ba ci biir commencé perdre rythme FC Barcelone bi kookee di Napoli di pompe di pompe ba ni Osimhen taale jaax yi libéré leen mu doon un bi partout mais bañ Napoli égaliser sax man en mois donné dama dem ba gis ne ne Barça daa mel ni la doon football tey quoi mu ngi noonee. te au niveau boobu Barça loolu niveau am wala ñëw gagné dem yorom man loolu laa gis quand mais ñu ngi xaar match retour bi peut-être résultat bi doy na ci ñoom ba retour bi ñoom ñu jéem a xool la la ñuy wane et en tout cas dëkk bopp biir Camp Nou la vous avez intérêt ngeen taxaw dëgër wane fulla ak fayda doggali gan gi ngir mën a qualifier Napoli tamit du taxaw bàyyi di seetaan moom it. li war ci moom mooy ko mu gagné ngir mën a qualifier kon nag ñu ngi xaar la suite nu muy demee nan la naka la ma may xaar ci commentaire yi lan moo doxul tey seen match ngeen bindal ma ko mu ngi noonee gars yi jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à Good. Oh, hit that ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه كلمه نشيطك والله بتاع دي يعني ابو اللي جابك على التليفون كمله كمله كويس كويس الف سلامه يا كابتن لازم يروح الملك لازم يروح الملك عمل له فرمان ده كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه. اعملوا له اعملوا له عمليه.